Bienvenue sur Salam Vision. ba heure bi rek. nit kër nga ut. ko. yorul dara loolu moo jaaduwul. man loolu lañ bëri. léegi nag man noo jaar démarche ma bu ma woo bu ñu demee. naka ko naka naa yoon. loolu neuf moom am na. jaamu yàlla la jeex na. man tamit bi lay fore li may fore. ndax man damaa ñëw fi marché bi barke de moo jaay mag si liggéey wax leen ne ah ndigal ñu ko ku ne ne bokkuma ci marché bi day liggéey loolu est-ce que dëgg la waaw wax ma rek wax ma ñun quinze heures lañ fa demoon bés bi article bi ñëwee lañ demoon marché bi dox kàddu yëpp ne li nga am la keroog am nañ ñëw ah xam nga am nañ ñëw te ñoom dañu war na ñëw ñun ñëpp mu jeex est-ce que ñëwoon nañ dem naa du ko ba ma wax leen ko ma ñëw bokkuñ ci marché ok ñu la ko. waaw kay. bokkuma kay bokkuma. ah bokkuma kay waaw maa ngi ko tuuti rek. maa ngi ko waxee naka li lay wax nii. parce que si Touba naka li lay wax. waaw. léegi Moussa Moussa yaa ngi nii taxaw yaay gardien marché bi kii mooy délégué marché bi ñu bëggoon xam coow li coow li coow li ah, lan moo ko waral coow li daal hmm. wàcc teel bi mooy coow li wàcc teel bi mun arrangé bu léegi hmm. waaw léegi nag man waay waay bay na loolu joxe ma ndigal mayu ma kantin luyu ma kantin man sama doole am bu jeexee ñibbi hmm. yaa ngi dégg daa wax day rafet mm-hmm. man nag am naa droit ne c'est-à-dire la leen may mm-hmm. mën naa nag du dak ñoom be neuf heures ku tëjul ma wax commissaire rek buñu tëjul mm-hmm. loolu mooy wax ñëwoon léegi mu ngi nii léegi dafa am ñu ñu fi jàpp ñu fi tëj te tëjuñ fi jàpp ñu fi kenn itam bu ñu ñëwee lu ñu def dañoo ñoo loo nit ñi cantine dañuy def la leen tëj leen rek dem seen yoon waaw la am lu ñu wax Omar wax nag dégg ne ku la si dépassé ñëwal ba ci mën a dimbali ma di ko wax. ñu sax kooku ñoom. jërëjëf délégué yow gannaaw bi ñu la nuyoo. yow itam ñu ngi lay ñaan ndax gannaaw yow yaa jiite marché bii ñun itam nu dëkk ci gox bi moo tax sax ñu am sañ-sañ ñu ñëw di laaj bëgg a xam li xew lu mu doon Moussa am nañu lum ñu ci leeral yow lan nga ñu ci mën a leeral ak lan la police waxante ak yow ci tëj marché bi ci waxtu woowu ñu dig la ñëw salmini bandiraɓe fof salmini kadi bandiraɓe hettiyankoɓe fof salmini kadi bandiraɓe marché ɓe fof nandirmo ɗum ɗo ko artigal ummigal guila dow wona commissariat ummi wona kadi e kadi e gouverneur ummi ummi koye président faade gouverneur faye sous préfet jippine police wa liggey muɗum mi xamalle liggey bi affaire bi arrêté bi jogul so commissariat dedet def jog kaw dégg dikk gouverneur président foofu ma jógee ma wàcce sa préfet wàcce sa commissariat ñu ngi si ma guddi. waxoon soxla naa la dafa yónni fii nitam sax def ronam. boo jox suñu ñu wax waxam woo ma wax ma léegi article wàcce na. dégg nga article mu wàccee. du ñoom du keneen état moo ko def virtuellement. général cinq heures ku képp ku jaay sa marché boo cinq na wàcc te dem këram boo six heures matin te ñëw liggéey liggéeyam léegi noon ak te kattan yàlla léegi ñëw na man mi woote yëpp booloo yëpp wax am na ku nangu am na ku sabat am na kay suñu topp toppatoo man sax muy sabotage la. tey mel ko maaga jël dogal yi nga xamal ko noonu lii. Mm-hmm. ñu xamal leen mm-hmm. lii di ngeen góor-góor ngeen jàpp ndogal yàlla su adduna yi yëpp ñoo nekk. Mm-hmm. nekk si ñun rek Sandaga ma gi ñu am doole. Tilleen ma gi ñu am doole. Kermel ma gi ñu am doole yëpp mu ngi tëj ay borom conteneur ak beneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen surtout maanaam département Pikine comme syndicat yi marché Thiaroye lii léegi soo demee foofu mu fekk foofu te bagage yëpp foofu moo def certificat foofu moo jaaree léegi noonu loolu yëpp mu nangu ñun waa Mariscounda culturement général ba jëkk yi ñun ak ñetti mbaar bokkul boo jeex léegi noonu bokk des ñun ñu jaam ñu jàpp yàlla yonent yi ñu muñ boo jeex léegi noonu xale yi am na ku révolte rek fay force ñu may ñun daanaka ba six heures benn waxtu la benn lii noonu du noonu rek sa dem sa préfet sax ba xam ne lii sax nga ñi wut foofu du jot audience am day yaakaar maanaam ba mu ñëwee rek préfet rek danaa dugg ba waxante ko préfet lu mu soxla yi wala ñoom dugg waxante préfet lu mu wax yi di préfet du noonu de préfet il faut nga jël sa audience effectivement ah gisoo fii benn dangay bëggee sax seen maire jënd caaron kaw tey su ngeen soxlees moom di ngeen jël audience ngeen xam noonu état fii ak état feneen yëpp moo yem képp ku soxla foo nga jël audience nga feeñ nga def ndànk nga waxtaan ak léegi ba ngeen muñee day fekk sax jeex na léegi kon audience bi nga bëgg yow da nga bëgg dem ñaan pour mu yokkal leen heure ma loolu xale ñu may leen ba sept heures loolu yaa ngi dañ ne pour ñu may leen ba sept heures kii nag dañ yaakaar ne kii yoonam mu te kii wax na démb mu ne yoonam nekk waaw loolu lay wax ni moom dem ut na audience pour war a mën a dem ñaan leen pour li xale yi bëgg ñu defal leen ko mais audience boobu xam nga yombeewul noonu parce que ñi tam ay kilifa lañ te te kii waruñ ko ci wax dara ndax kii ko ci wax tooñ ko mhm. luñ noonu day arsalé ma fii maa maa ko wax ñe ferme leen ferme leen boo ñu léegi noonu commandant boobu ma ne léegi yónni ci commissariat bi woon ko nit yi mhm. ñu bañ yi mhm. léegi noonu ñëw na gis ma ne léegi ku arsalé rek jàpp tuuram indi. Mhm. loolu noonu man wax dëggal suñu njaboot. est-ce que yow fi mu ne bu subaa tamit bu fekkee gisaguloo gisaguloo préfet bi amaguloo audience bi. bu marché bi të tëjee tëwee tëj tamit est que da nga di nga woo di nga woo police pour ñu ñëw tëj marché bi. wax dëgg yàlla tant que article président ak gouverneur. Mhm. danaa respecté man mhm. man suñu wàll man. danaa def suñu droit danaa war a wax woowu. comme sëriñ yaa ngi leen nangul. jërëjëf ah ah macha allah loolu.